Alassane Hann maa ngi lay nuyu. maa ngi lay madame. voilà Alassane Hann nga nekk expert aéronautique 5 septembre bi mooy marqué anniversaire u crash bu avion Sénégal Air amoon ci 5 septembre 2015 est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci drame bi ak ñaata nit ñoo ci faatu woon. madame gannaaw bu ma leen nuyoo euh, remercier leen ci seen invitation euh, maa ngi jaale. képp ko xam ne tey disons euh, sa bakkan des na ci ak ñun jàlle seen i mbokk li xaw nag mooy le cinq septembre deux mille quinze benn roplaan bu jóge woon Ouagadougou euh, yeboon euh, benn doomu doomu France bu feebaroon waroon ko jëlee Ouagadougou indi ko Dakar malheureusement ba mu ñëwee ñëw ba toll ci Tambacounda ca la mbëkkanteeg beneen roplaan bu jóge woon Dakar di dem Cotonou Euh, mbëkkante boobu moo indi moom ci boppam mu continuer ñëw ba Dakar ci géej gi daal di daanu ci biir léegi nag euh, li xew mooy euh, muy lu metti lu metti en ce sens que tey man bu ma tëddee man maay ki nga xam ne maa nekkoon chef de maintenance compagnie bi naka laa nekkeewoon chef de maintenance man technicien la nekkoon armée de l'air liggéey fi lu ëpp ñaar fukki at ak juróom directeur général compagnie bi moo ñëwoon seet si ma ba ko aviation civile tongalee ne ko foog nga am technicien bu lay bu lay jàppale euh, parce que yow bés bu nekk yaa ngi def ligne Dakar Ziguinchor euh, di yóbbu ay nit di leen delloo si mënuloo di ko def ci amoon technicien bi mu ñëwee seet si moom ma ma d'accord ak ñoom ci waxtaan dem jàppale ko bi ma ko jàppale Euh, octobre deux mille dix ba mars deux mille onze mu taxaw carrément ne ma xëy na boobu gis na sama njëriñ ne ma daal il faut nga bàyyi armée de l'air ñëw féete ci man ah, waxa pareeguma sax mu signer ma contrat à durée indéterminée jox ma benn lettre de nomination bi ma ñëwee sax di bëgg a bàyyi armée euh, damaa mujj jàppante ak ñoom parce que ñoom seen bopp bëgguñu woon ma jóge fa bi ma fa jógee nag ba ñëw féete féete ci moom euh, malgré li ma waxtaanoon nag moom yëpp ci laa gis ne moom ci boppam ndekete wéyu rek bu nekkoon ci aéroport bi léegi nag bi ma bi loolu amee euh, man nag maay koo xam ne du ma seetaan euh, sama sama sama éthique sama moral mayu ma seetaan nit donte yaa moom sa compagnie yor say avion nit ñi di fay nga leen di yóbbu ngay def lu la neex ba seeni bakkan bi ci des man ci sama bopp maa ñëw waxtaan ak moom ne ko nag say roplaan yaa ko moom waaye dafa yomb man dañ maa engagé pour ma ñëw yore la sa maintenance soo paan bi pour paane nuñ ko defar defar bi xëy na laaj na xaalis waaye boo génnee xaalis génne matériel ñu defar ko mu baax ñépp am jàmm mu gis ni nag moom comme ci loolu la dëkk te du moom rek moom ak lobby la léegi nag man arrangé wu ko waaw mu ci xëccoog man di ci xëccoog man ba man bi ma gisee musiba bi di ñëw man ci sama bopp mënoon naa jóge foofu ci anam yooyu soit ma dem wuti leneen defi leneen wala ma dem sax ci beneen compagnie parce que am naa samay compétence donc te prouvé naa ko aussi am naa samay diplôme liggéey naa am naa expérience euh, armée de l'air armée de l'air duñ euh, ko natable waaye moom ci boppam bi mu demee ba gis ne arrangé wu ko mu commencé continuer di def lu ko neex ma dem wax ak autorité aviation civile yi expliqué leen ne leen nag kaay leen ngeen wax ci balaa musiba bi di di di éclater suñuy loxo ñun ci seen bopp bi bi ñu man gis naa ne euh, li ma doon xaar ci ñoom amul maan ci sama bopp ci laa jël euh, sama responsabilité parce que quand même sama conscience mënuma may ma toog di seetaan ay nit di ñàkk seen bakkan euh, bu ma demee man ci sama bopp ba dogu nekk militaire yor arme dégg nga di ne damay xeex pour aar askan wi dugub taxaw di liggéey ci roppalaan di bàyyi nit ñi di courir le risque di di dee ci ci compagnie mooy sama sama sama credo ci laa jóg nag def sama rapport circonstance yi yónnee ko euh, directeur général aviation civile dem ci ñoom waxtaan ak ñoom wax leen situation bi bi nga gisee na ñoom ci seen bopp aussi euh, am na tuuti chakhan bu ne ci biir ci laa def ampliation jox ko président de la république premier ministre Euh, ak ministre yeeg euh, directeur généraux yi yi ci waroon a jot yëpp parce que en réalité ñoom laa daan le plus souvent ñoom laa daan dugal ci roplaan bi ci roplaanu compagnie boobu léegi bi loolu amee directeur général bi euh, semaine laa ci teg mu yónni ma lettre ne ma na ma pour motif économique laaju ma sax sama avis ci laaju lettre bi dem porté ko plainte ñu porté plainte compagnie bi ñu dem tribunal du travail ñu daan ko mu dem appel ñu daan ko mu dem cassation ñu daan ko euh, huissier ci boppam dem pour recouvrer li nga xam ne moom la ma tribunal jox moom ci boppam mu nëbb ko te nga def yëfu saay-saay ba ñu delloo ko tribunal ba condamné ko en correctionnel léegi nag ma continuer di xeex pour que quand même Sénégal jéem a wax ci compagnie bi parce que musiba mi ñëw tant que compagnie baa ngi continuer ñu ñaa ngi euh, courir euh, risque dee malheureusement le cinq septembre deux mille quinze loolu moo am bi loolu amee nag euh, man ci sama bopp bu ngeen ko fàttalikoo le six septembre muy dimanche à midi dégg ngeen yéen ñëpp benn allocution boo xam ne RFM moo ñoo fekk ma fi ma dëkk tàllal ma micro laaj ma ma expliquer mu nekk loo xam ne benn allocution virale la ba yéen ñëpp ngeen dund ko léegi nag euh, dossier bi enquête judiciaire bi def nañ ko conclusion yi rapport bi génn na tribunal jël na ko convoqué na ñi nga xam ne ñoom la ñu war a convoqué yëpp depuis deux mille un deux mille vingt et un plutôt ñu ngi tribunal ça ça va faire euh, bientôt trois ans euh, mënuñu avancer waaw ñu ngi rek ci di tergiverser lu xew ay nit ñoo dee ci roplaan muy catastrophe boo xam ne tey jii euh, deru Sénégal moo ci yàqu léegi ma nga xalaat rek ñaata nationalité ñoo ci naroon a impliqué wu ñuy ñi nekkoon ci roplaan bi nekkoon bi ñu mbëkkanteel nga xam ne ñi doon dem Malabo euh, matoon nañ ëppoon nañ téeméer ak juróom fukk ak ñi nga xam ne ñoom ñoo disparaître tey Euh, drame bi mënoon naa nekk beneen réew bu dul Sénégal te bu fa nekkoon tey jii réew moomu mooy am euh, disons euh, la primauté jël dossier bi di ko saytu bu doona loolu la man am naa yàqin na heure bi waroon na fekk lépp leer mais Sénégal mi ngi traîner ak dossier bi li ci topp mooy keroog bi roplaan bi daanoo presse bi dafa génne benn tudd Charles Gérard xaw ma ko musuma ko gis moom mu ne moom moo nekkoon directeur général adjoint bi directeur général bi moom ñemetu woon a àddu directeur général adjoint boobu moo ñëw taxaw amul lu ma yàqul ci ci presse xamuma xamuma ko ah, musuma évaluer xamul samay compétence xamul sax luy aviation moom ci boppam boo ko déggee muy wax sax xam na xam nga ne kii xamul dara ci Roxlaan léegi nag kooku ba mu waxee loolu ba pare tey jii comme ñu ngi tribunal man dinaa laaj tribunal bi mu woo ko moom ci boppam ñu taxaw ñu expliquer ban rôle lay joué ci compagnie bi te compagnie boobu compagnie boobu apparemment compagnie la boo xam ne affaire famille lañ ko defoon affaire lobby léegi nag euh, ay nit ñoo ci dee muy catastrophe catastrophe aérienne dafa nekk am envergure internationale en principe li ma gën a jaaxal sax muy tubaab bi nga xam ne moo ci dee te nga xam ne tubaab yi ñoom ci seen bopp bi rapport euh, judiciaire bi génnee ñoom ñoo jóge Paris ñëw fekk parquet Dakar ne ko ubbil information judiciaire boobu tubaab boobu gisuma kenn ku ko représenté tey jii ci tribunal bi lan moo xew est-ce que ñoom porte nañ plainte est-ce que ay nit du ay nit ñoo nekkoon ci roppalaan bi nit nag mu tëddee ay nit mu ñoo dee ci roppalaan mu nekk catastrophe aérienne ñu bëggoon nëpp nëppal en tout cas du demee noonu du demee noonu te man biñ ma licencié moom Charles Gérard wax na ko bu ngeen ko dégloo bu ngeen ko liiree ci article bi nee na man aw ma woon benn compétence xaw ma woon dara moo taxoon sax après benn compagnie nangu naa engagé li xew mooy bi bi bi catastrophe bi amee avant même bi ma leen defee bi ma defee rapport bi fu ne la ñu dugg euh, affaire lobby lañ ko def ba taxaw ku ma bëgg a euh, ku ma bëgg a am engagé sax ñu ñu menacé la waaw jot jot naa fi euh, avis euh, affect naa woo ma na ma ma ñëw pour ñu def entretien d'embauche parce que xëy na ñoom gis nañ samay compétence bëggoon nañu mu ñëw servir leen waaye keroog bi ma jógee sama kër di dem pour entretien d'embauche bi ci yoon ñi lañ ñëwoon na ma entretien d'embauche boobu dañ koy dàq ndax boobu ba ba tey may wax yow ñu amoon muy loo xam ne ñoom ñoo ko torpiller seen bopp parce que ñoom ñoo yor aviation civile muy ñoom muy seen i euh, disons njaatige ñoom ñoo gisee ci seen bi def ko une affaire d' état man nag affaire bi nekkul affaire d' xëy na tey bu fekkonte ne ñoom ñoo ci des wala seen mbokk des ci mbir mi du demee nii c' parce que ñu ci des xëy na dañu dañul seen mbokk damay laaj damay demande nag tribunal. mbir mi ñu ñu éclaircir ko c'est-à-dire ni ñu ko jugé dégg nga ni ñu ko jugé ñi nga xam ne ñoom la la ci seen euh, mbokk des na ñu ñëw taxaw euh, au moins pour la mémoire de seen mbokk yi ci des mbir mi ñu leeral ko ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne joué nañ ci rôle boo xam ne waruñu ko woon joué ñoom ci seen bopp tribunal na def liggéeyam ba liñ ci war ñu def ko parce que bu dul loolu Euh, lii jógewu fi waaw lii jógewu fi te compagnie sénégalaire wax naa leen ko dafa di compagnie boo xam ne euh, à la limite amul woon place am foofu waaw amul woon place am foofu ñoom xam nañ ko xam nañ ne amul woon place am foofu bàyyi nañ ko mu nekk fa li tax ak accident bi am euh, keroog ba mu am deux deux semaines wala trois semaines avant lu mel noonu xewoon na ci kaw ci même avion boobu ba mu demee xaw a mbëkk beneen baplaan ba mbëkk baplaan boobu yuuxu ba bu ñu wàccee ñu ñëw na leen inspecté leen baplaanu euh, sénégalaire bi parce que li mu def du yoon euh, équipe euh, instrument bi nga xam ne moo waroon a tax moom muy gisee nga xam ne ñoo nekk ci kaw instrument boobu baax woon inspection ba ñu def parce que inspecté nañ ko l'essentiel mooy Euh, même équipement boobu la demee te ba mu demee moom la xewoon foofu moo xewaat ba mu mbëkk beneen population muy muy muy nekk lu doy waar loo xam ne euh, kenn waru ko toléré kenn waru ko seetaan man nag tuuti at a ngi nii téye ma ne ma du ma liggéey tribunal daan leen ñu ne duñ ma bi nga xam ne moom la bu tribunal wax ne nañ ma koy fay man borom njaboot la yor samay doom yor samay njaboot ñu téye ma ne du ma liggéey ma nekk am expérience boo xam ne tey jii euh, ni ma ko doon defee armée de l'air liggéey ba am expérience di ko tasaare di di di former tey ji waroon na fekk man ma jeexal sax ba former ay nit yu bëree bëree bëri loolu yëpp ñu teg ci seen tànk muy lu méttee métti loo xam ne moom laay dindi jamono ji may wax ak yéen. lu ni mel tax euh, dossier judiciaire bi nekk loo xam ne daf la soxal euh, est-ce que mën nga ñu expliquer une deux minutes lan moo tax vous tenez temps à à ce dossier. fan bu baax de. allo allo allo. ba léegi ba léegi déggoo ma waaw maintenant c'est bon. allo waaw c'est bon waaw. ma ne dossier judiciaire bi fan la toll exactement parce que gis naa ni euh, lu ni mel lu la soxal la fan ngeen si toll juste une deux minutes euh, Alassane Anne waaw monsieur bi mu ngi tribunal correctionnel ñu ñu convoqué chaque fois bi ñu renvoyé chaque fois ñu ñu convoqué te dossier bi du am na ñi nga xam ne ñoom la ñu inculpé dañu ñëw taxaw euh, famille de victimes yi constitué ñu taxaw en principe ay compagnie d' assurance dugal nañ leen ci biir état Sénégal dugal nañ ko ci biir à travers son l'agent judiciaire de l'état ah, euh, témoins yi ñuy convoqué ñoom dañoo war a ñëw moom xam nañ ne lii du caaxaan dañoo war a ñëw teew képp koo xam ne cité nañ la ci en qualité de témoin bésu euh, procès da nga war a ñëw da nga war a ñëw teew parce que am na leeral boo xam ne war nga ko cee leeral parce que yow ci sa bopp déglu nañ la ci enquête judiciaire ba nga ba defal la li nga waxoon war naa ñëw leeral ko waaw da la laay ñaan tribunal bi mu taxaw ci ba euh, le vingt six octobre bi di ñëw mooy prochaine audience ñu ñëw taxaw mbir mi ñu ko mu jeex ko mu voilà merci beaucoup Alassane Hann maa ngi lay remercier bu baax a baax ci leeral li merci madame merci merci voilà may fàttali euh, vous êtes expert en aéronautique merci beaucoup euh, Alassane Hann.